muy ndaje boo xam ne amoon nañ ko léegi nii ci atum deux mille vingt et un weeru décembre ñu doon waajal couverture des vaccins yàlla def ak moomu bu ngeen ñëwee ba jox leen bi gars yi leen jox aussi ay yëppanti mooy football boobu am na solo lool waaye amul njëriñ trop tey jii d'ailleurs ñu ngi koy jaale maa ngi signé léegi benn lettre de condoléance dama la ko ci chancelier bu Allemagne ginnaaw bu Franz Beckenbauer wàccee léegi ñu ñaan yàlla ma fare ko ak mu nekkoon footballeur bu xarañoon amoon fële kon libéro bu dëgër moom ak Gerd Müller ak mille neuf cent soixante génération boobu ak ñi toppoon ci ñoom ñu loolu day wane nit ki fi nga ne di liggéey ko war a fonk wane ngeen ko nag ndax war a kon 2022 doo leen gagné coupe d'Afrique de Nations xeet footballeur bu ne am nañ ko Sénégal waaye nag seen xarañ yéen la yàlla may ngeen may ñu la première fois dans notre histoire la coupe d'Afrique de Nations ba tey équipe boo leen di dajal bu nelaw di xalaat mooy jaar wala lu ma si muccee pour génn honorable kon nag bu leen yërëm affaire yi bu puudar bi neex da ngay naan moom sa attiré amul attiré da ngeen di dugal biir bi bëri kenn bu leen ko yërëm n'est-ce pas li am wax ne war daan leen yéene leen mën comme ça kon maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu jàppale leen Sénégal yëpp a ngi gis

en tout cas dama assumer son rôle historique ku def lu am lu rëy am na lu ñu waxtaane déjà ak yeneen fédération ak ministère waaye nag maintenant boo leen ñu indilee coupe am raaya boo xam ne ak neexal boo xam ne du mucc ayib lañ ko dañ ko fi wax dañu naan dañu dellu ma